tey li waral tey ñu woote ndaje mi yaakaar naa Sénégal fi mu toll nii dox Afrique sax laay wax ñëpp yaakaar naa xam nañ ko. Hmm. muy li nga xam ne tey nit ñi koy teg muy diggante police ak douane ak gendarmerie ak eaux forêt yi nga xam ne tey. Hmm. foo jaar kenn mënut a liggéey. Hmm. maanaam oto sax da nga koy jënd ba pare. maanaam da ngay dem ba ci biir dem gaare ko sax wala nga dugal ko ci géej gi mooy mooy dese ndax ay boro la fekk wala nga dem kaso. leneen li ñu war a njëkkal laase nag. muy tey loo xam ne ñu dañ koy wax. Mm-hmm. muy ñi nga xam ne mooy secrétaire national bi sëñ Góoru Xumba ñoom ak union bi nga xam ne tey ñoo ànd tey def ensemble dem Geraw. muy mm-hmm. syndicat yi. Mm-hmm. su nattongoo yooyu nga xam ne jàpp nañ leen. muy doon ay gaynde nga xam ne xeex moo a tax dugg kay kaso. dañ ne ministre bi woote na tey. waaye nañ xam ne balaa oto yee daw ñoo ñu nekk ci biir kaso bi dañoo génn ba pare te nañ xam ne tim euh, leneen li ci tege tim ñu xam ne dañoo yàgg dikk signé ay fooy signé ay kayit ne mhm. ministre bi wax ne danañ ko def mhm. yaakaar naa daw Daouda Diallo ba léegi ñu ngi waxtaan ak ministre te li ñu waxoon dara duñ ko ci def mhm. tey li wax mooy bala ñoo jóge ci geraw bii ci lu leer la ñuy daw nan la ñuy def mooy góor xuma ñoom tey yéen ay ndaw ngeen chauffeur yi ñoo leen yabal ak transporteurs yi suñu kàddu ngeen fay waxee suñu jëmm ngeen fa taxawee na ngeen xam ne lu leer moo ñuy tax a daw ndax sonn nañ poste yi dañoo bëgg ñu dindi ko ndax nag bu fekkee ne dañ na ger lañ wax mhm. ay nit taxaw na ñun kat ger lañ bëgg ñu dindil ñu ko mhm. yaakaar naa président yi da cee war a taxaw ci ger googu leneen li ci tege muy nag département bi nga xam ne mhm. muy région de Diourbel département de Mbacké commune de Touba dama ne ñeneen ñi buñ ñu gën a gore nan doon ay gor ah ñi nga xam ne ay défaillants la ñu wax ne ay jaam lañ ñuy daw nañ xeetaat seen xel te xam ne li ñuy xeex ñoom ñoom ñoo ko bokk di ko xeex te njëriñ ñëpp la kon nañ gaare oto yi nañ taxaw xam ne lii ñuy xeex dama ne nag sa wër si ndaw si nag laay wax ndax bu dee Ousmane Ndoye mii di dawal yaakaar naa sonnatul ci tali bi ndax bu ma daggee sama brosse yi police bu ma ko joxee sax permis donc bu xoolee ba mais xeex bi ndaw ñi yéen yéen a ko moom ak ñii ñëw nga xam ne ëllëg yéen a fii ne yéen a tax ñuy xeex ma ne yéen taxaw leen ci xeex bi def ko seen xeex yow waxee nag ci tur suñu kilifa suñu secrétaire général madame Ndiaye mi fi teewal góoru xuma ici au niveau de ñun réew mi dañ ko seq ak suñuy nawle muy gendarme policier alkaati ba ci douane gone yi di ay gone yu ndaw bàyyi seen i document ñu ci dëkk bi dem jàngi oto yàlla nattoo leen ko policier yi dem jàngi tubaab yàlla nattoo leen ñu nekk ay policier ak ay gendarme da nga fiy jógee fi fii dem ba Tambacounda alkaati boo romb wala policier ba wala gendarme boo romb ñu di la laaj ab xaalis te ko fenn on est tellement fatigué au moment où vous parle ils sont mais loolu ndara du suñuy camarades yi nga xam ne dañu leen a jàpp te dañuy xeex ngir ñu am suñu indépendance dama ni trop c'est trop président Macky Sall na ko wóor na gëmut na la wut la preuve mooy la veille ca démb mi ngi yor otom di doxantu am bànneexam ñun nag oto yi ñu yor mooy ñëpp sac si la ñuy suturloo di ci teral njaboot nañu dimbale te jàpp ñu te xam ni réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ay citoyen Sénégal lañ dëkkuñ Mali dëkkuñ Burkina Faso dañuy liggéey ngir teral suñu njaboot mais nag dafa am loo xam ne nii àddina lu doy lu ñu doy rek moo fi am la preuve mooy la veille yow dañu la embauché dina fay weer alkaati bi ñu embauché ñu jël ko teg ci li di ko fay weer nay yam teel ñu koy fay mais nag bu fekkee da nga li ñu may fay naa ko fi teg te yow li lii ngay liggéey li ma ko jox loolu lañ ne mënatuñ cee dem douane boo romb mooy la tees tees deux mille francs tees trente mille francs mais trop c'est trop ici au niveau de Touba on est tellement fatigué Touba dëkk bu mag la da ngay déparé ngaabu ba kese Abdou Karim Mbacke lu tollu fukki montage ñu ngi fi te loolu dañoo mënut nag golo di béy baabu dundee tural sa tural réew mi ñoo ko séq ñun ñëpp ñoo ko bokk. président Macky Sall ñun. ñun emprunté yi ñu ngi jooy. sonn nañ trop. ndaxte suñu njaatige yi liggéeyatuñ. mënatuñoo am xaalis. montage yi bari nañ. Uh-huh. te ñun dëgg la li ñu daan jox ration ñu koy dundee. Uh-huh. ci lañ daan am weccet di ci am dara. Uh-huh. fi mu toll loolu lépp mënatut am. Sénégal metti na metti na metti na. ñun ñëpp a ngi daw jëm ci géej gi nit ñëpp a ngi daw di def leneen mhm. ñun nag defuñu loolu ay xale yu góor lañ dañuy mhm. liggéey liggéey lañ xam nañu président Macky Sall dimbali jàppale ñu te yàlla tax mhm. na jàppale suñu njaatige yi xam ne ndaw yee ko fi teg nañu dimbali te yàlla tax loolu daal lañ amal luñ doon wax